yoon Adama Fall opposant bu bees bi. waaw soxna Penda. naka opposition bi. opposition dafa neex nag. opposition zone ba zone bu neex la c'est un zone c'est une zone de confort. ah une zone de confort bu amul pression. Mm. du pression sociale du pression économique. Mm. du pression leneen. Mm. loo def baax na loo def gars yi nangul la ko. donc c'est ça l'opposition. Mm-hmm. te xam nañ ko. Mm-hmm. parce que def nañ ci ñetti delluwaat ca du gàcce. Mhm. parce que euh, àdduna. Mhm. tey yow la suba sa morom. Mhm. te yaakaar naa ni Sénégal suñu amoon ay alternance yu bari. dinañ weesu situation bii ñu nekk. donc euh, di wax ni c'est un plaisir ñëw toog fi. <coughs> di jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom laa war a jàkkaarloo ñu waxtaan ak askanu Sénégal. Euh, par rapport ak li nga xam ni mooy ay xew-xew yu xew Sénégal. loo xamante ni dugguleet ñu ngi nekkam ci quatrième troisième alternance. dugguleet ci Sénégal. taaru démocratie du guleet ci Sénégal. Mhm. ñi jàppoon ni réew mi day tàkk tàkkul. Mhm. ñi jàppoon ni leneen day xaw Sénégal leneen xawu ci jàmm mhm. yàlla andi jàmm def salaam. loolu mooy Sénégal moom jàmm rek moo fi sax. maintenant nag am na ñu xëcc ba ñu jox leen nañ leen xool rek. ndax ni ñuy tàmbalee dina baax wala du baax commencé teel leen di leen commencé di leen évaluer alors que ñoom tegguñu sax tànk seen gouvernement sax tegguñ ko ngeen commencé di leen vaar. waaw xam nga pouvoir da nga koy jëlee ci waxu démbam nga andi ko soo jëlee ci waxu démbam dafa am lu ñu jaay dañ ñoo jaay rupture ci waxu démbam nga mun ko indi pour évaluer acte parce que pouvoir du former gouvernement donc pouvoir la formation du cabinet présidentiel da nga xam fan lañu jëm ndax rupture bi ñu doon wax démb ak barki démb dinañ ci ne wala duñ ci ne rupture nag dans la démarche et dans la manière de faire. moo tax démb ñu am jaaxle nag jaaxle bu rëy rëy rëy rëy xam nga lu ñu jaaxal dañoo jël benn nit boo xamante ni traverse na ñetti pouvoir muy pouvoir Abdoulaye Wade pouvoir Macky Sall ñëw bokk ci pouvoir Bassirou Diomaye ñu nommé ko directeur de cabinet du président de la République ministre directeur de cabinet loolu muy jaaxal jaaxle te ki ko ko nome moo ne woon nit kooku naa féq la mooy seen kàddu démb kàddu démb ki nga xam ne mooy président de la République tey ci ki mu neme directeur de cabinet mooy kooku c'est un petit mooy maanaam Mary Teuw Niane est un maanaam Mary Teuw Niane naa féq la ki ñu fal tey barki démboo Ndiaye te mu prêter serment démb xaw ma démb xaw démb moo jël ab naaféq fal ko directeur de cabinet mooy ki mu tuddee woon naaféq moom la def pré directeur de cabinet du njàqare parce que nag jàpp naa ni naaféq moom kenn du ko fal. mais bañ nga ko ba ni ki mu woon moom basé wul la mu waxoon de. déet compétence ga la xool. Hmm. damaa jàpp ni ay valeur bokkul ci naaféq rupture nag andi valeur la. loo compétent compétent te nekk naa féq waru waruñu la fal. kon daal yow àndoo ci boobu lépp damaa jàpp ni rupture ba waroona ba ñu faree ab naa naaféq ba ñu falee ab petit type ba ñu fale ba ba ba ba ba ba ñu falee ki ñu tu ki ñu waxoon ki ñu traité woon de dégueulasse ministre de ministre ministre directeur de cabinet foofu la rupture bi waroo. d'accord moo tax man ma am njàqare ci la suite. parce que falagoo gouvernement rek de sa directeur de cabinet nga fal lépp loo xamante ne jaayoon nga ko Sénégal dem na compétence waxuma du waxuma amul compétence mais man ci ay valeur laa wax ñaata doomu Sénégal ñoo fi ne nekk biir université wala nekk ay universitaire am compétence boo mën a jox poste directeur de cabinet loolu dinañ ci ñëwaat. bari na mais defoo ko dang ñu jaayoon nañu suñu faloo nekkuñu fi pour partage gato Mary Teuw Niane de était membre de la coalition Diomaye président était candidat spolié moom lañ njëkk cër Ousmane Sonko était membre de la coalition Bassirou Diomaye moom lañ ci teg premier ministre loolu du séddoo bii bukki bii njuur ça veut pas dire que nag amuñu compétence mais am na yeneen sénégalais yu am compétence yoo xamante ni pour l' instant pour la poste pour le poste de premier ministre et le poste de directeur de cabinet ba naan leen fa andi ñi nga xam ne dañoo àndoon ak ñoom. ñooñu suñu mais ñeneen ñooñu muñ lañ leen dugal ci gouvernement bu fàttali liste bi génnagul. waaw dama ne waaw dama ne xam nga nag cin su baree naree neex su baxee xeeñ. ah mais ni mu baxee nii neexul. non neexul parce que dañ ñoo jaayoon nañu bëgguñu jël réew mi pour ngeen séddoo. jël Ousmane Sonko fal ko premier ministre du cëru du jox ko wàllam. jël Bassirou Diomaye waay jël jël euh, Mary Teuw Niane jox ko wàllam ci gato bi def ko directeur de cabinet loolu du jox ko wàllam ci xeex bi nga xeex. d'accord parce que nag su nekkee compétence donc. il mm. y a plusieurs sénégalais compétents. d'accord te defuñu politique. parce que nag Amadou Omar Samba Ba deful politique bokkul ci parti politique il n'a jamais été candidat. il n'a jamais milité dans un parti c'est un IGE un cadre soo ko nommé duma ci wax. d'accord Adama Fall ñi ngi ñëwaat ci yow euh, Mouhamadou Lo euh, yow ngay euh, cadre Pastef jege lool kii di Ousmane Sonko démb ñu nommé ko premier ministre gis nga discours bi mu tenir mais déjà bu ñu taxawee ci poste bi nomination bi bi nga ko déggee dem bett na la bettu la qu'est-ce que ça t'a fait. sincèrement man bettu ma tax bettu mooy parce que duñ def l'homme qu'il faut à la place qu'il xam nga Sénégal toll foo xamante ni il faut que nit ñi dellusiwaat ñuy waxante dëgg te yàlla tax parce que Ousmane Sonko xeex bi maanaam Sénégal tey liberté bu liberté bu Sénégal am ni loxo mi si biir comment former un gouvernement nit jàpp rey def si rey si boppam def su ne. xam lo pour projet bi am pour projet bi mun aboutir mu ñëw ñuy fal pour mu pour projet bi ñu ko déedéet yow. yow waroo bokk xañ boppam tamit xañ xam lo boppam te ak a mënoon bokk nag. ak mënoon bokk mais dafa xañ boppam pour jëlee kenn xam nga nit day am grandeur yi nga nit fa am grandeur te domaat day am grandeur te grandeur boobu noonu Ousmane Sonko wane ñëw di doxal gouvernement bi ñëw pour doxal gouvernement bi pour doxal projet bi ndax kenn gënu ko miin projet boobu kenn gënu ko si xam mm, état état état état Sénégal guñ toll. Mhm. xam na leen du bu tax boobu ba léegi muy nekk ñoom bëtti bëtti bëtti xam la mhm. fu nekk ñu jàpp ka fa tëj. Mhm. parce A ñun dul ñëw fii pour def rupture. Mhm. rupture bu mu wax noonu. kon na nga jàpp ne ni mu xamee tamit état xamoon ñi fi nekkoon. ak euh, ni mu maîtriser projet bi bokk nañ ci choix yi nga xamante ni moo moo ko moo waral tey jii Diomaye porté ko wala ndax tout simplement ni mu porte combat bi euh, sursoir ay ay ambition am jiital ci li Diomaye moom moo ko waral. non non non non c'est tout tout loin de loin de là. parce que am na ñu jàpp ni peut-être. loin de là du du du reconnaissance. c'est pas force pour pour non sonn nga si boobu léegi yow li ma la dunul def du ko teg la l'homme qu'il faut à la place du ko jàpp ni fii moom moo foo toog moo fi mën a toog yun tool li Sénégal soxla te instant yi Ousmane sonk rek moo ko mën a apporter moo ko mën a apporter Sénégal du keneen mais ndax mënuñu koon def lu mel ni comme lañ jox Mary def ko directeur de cabinet parce que directeur de cabinet bi euh, mm. moom euh, dina teewee lépp dina xam li nga xamante ni moom mooy nekk en cours maanaam mm. sax am na ñu jàpp ni sax directeur de cabinet bi mooy poste bu gën a stratégie sax nga xamante ni moom mooy poste de premier ministre waaw mais voilà xam nga aussi soo soo waxee loolu da ngay indi waat fenn dama mooy mooy euh, le président de la république il est à l'aise toogee mooy nga toog xool man kii laa bëgg a fii sa compé say compétence fii la lii la lii la lii la xam ne kii doy na ma teg fa doo xool ndax sama xarit la doo xool ndax mbokk la doo xool ndax eh, ndax defaloon na ma lii wala tëjoon nañu kaso bi dama ko war fay. maanaam du poste yaa mu neex daal. du poste yaa mu neex moom mu jëlee fii te di nga sa xam dara li mu wax nii di nga sa xam dara après les postes direction ñu ngi ñëw. oui ah lan la wax appel d'offre mosoo ko dégg senegal mhm. mosoo dégg Sénégal ñu appel d'offre ñu ngi fal direction appel d'offre mosoo ko dégg te di nga ko dégg à venir. maanaam candidature. ah appel à candidature. non non appel non candidat non. je non appel à candidature la. waaw mais appel maanaam. non du appel d'offre appel à candidature. non appel ah, non waxal rek waxal non. grave dama lay corriger un peu rek. waxal appel à candidature noo ko mën a baax li ma bëgg a wax. waaye maanaam laa laa du poste ba xam dama lay xam. kaay constitué fal la ko déedéet. sa compétence laa la fa tegee. Mhm. compétence lu teg ñu liggéey mais lu yàq Sénégal loolu la. kii sama mbokk dama koy jël kii man moom àndoo xëy dama koy jël xamoo li ngay jox li ngay jox kon rupture bi Adama Fall doon wax léegi ni moom gëmu ko parce que déjà jalon yi ngeen posé annoncé wu leen la rupture yow yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy ba rupture bi am na ban jalon lu posé falkan Ousmane Sonko loolu loolu loolu loolu moom na ni ku mel ni Mary Teuw ba nekkoon ca système ba mais Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane a les compétences xam lo pour li nga ko jox mu doxal ko li nga ko jox xam nañ ko ñoom xam nga problème sooy euh, sooy sooy sooy fàttali que ni que non xul mës na mës nañu jàppan nga ni ko non naa feexal ni xam la la moo leen boole woon xam la day xool cause bu leen boole woon ak la moo tax ñu lox. c'est vrai que contexte yooyu ak contexte yooyu. xam la nit mën na tey nit nit mën na tey mën na mën mën ko accu accuse dara nga def ma ñu seq ñu am problème mu nga nga nga nga wax ma. nga accuse benn non ni ma ni ma naa feex exemple le mot xam la mais soo ma ko waxee fekk man tey. ku lox li li nga may jiin def moo ko fekk sa sa kilifa gi mag gi ñoom seen seen seen seen président moo ko def moom dara. Mm-hmm. Ah, ah maam naa fekk bu ñu ko waxoon rek war na ko fal déedéet. mais moom mën a juum sax Diomaye mën a juum nit la. mën na ne naa fekk mu def xam ne lu mu Mm. souvent di nga am déedéet nit la dem ba ci biir xamante ak moom découvrir benn facette nit da ngay tooñ léegi non dama exemple petit type bi mu ko tuddee woon non petit type non wax ngeen mag wax lu ne daf ko wax daf ko ne au xam lo dama ne ba pare teg ci ko teg dama lu mu ko mën wax ni ko naafeq la ni ko lii wax mu lo loolu dama la contexte bu nga ko waxee woon loolu. xam la loolu tax ah, kon yow accepté nga nit. toll ci contexte mën nga jum xaxar saaga. déedéet déedéet déedéet après tey ñu corrigé quoi. déedéet du tout wax ma loolu de dama nit mën nga juum tooñ. loolu laa je suis très clair. ah kon Diomaye dafa tooñoon. déedéet wax ma loolu de ba léegi dama yow yaa bëgg a wax dama dama parce que da nga taxaw ni. carrément ni waru noonu fal météo ñaan parce que su nga fal day mel ni tey rupture amul. mais ki ko xas kay moo ko xam la mais ki nga xas tey mais man dem la wax sëñ bi. ki ko saaga li mu la wax sëñ bi cest à daf ko saaga. loolu du deñ yéen taxaw ngeen ngeen teet Abdoulaye Wade tous les noms d'oiseaux yéen seen biir AP taxaw ngeen ngeen wax Macky Sall mii nga xam yéen a moom de tous les noms seen biir waaw dama leen nag loolu mooy lii nag ñun ñoo ko jeexal loolu ñun ñoo ko jeexal mais du nii du nii lay jeexee amu tax du nii lay jeexee hmm. parce que ni ngeen déparé baaxul nuñ lii jaaduwul am ah, kay déedéet ñu on ko déglu ko chef ñu deful dara yéen da ngeen jël lu ne weng ki nga xam ne moo nekkoon géwalu Macky Sall di ko tagg naan ko Macky Sall ka mojjo Macky Sall ka nangam Macky Sall ka nangam ngeen taxaw xas leen saaga leen ngeen wëlbat ko fayu teg ko nangam sangam ñëw ngeen def de cabinet Sénégal Sénégal loolu remarqué ba jëlee leen fi xam tàmbali bi de baaxul non non mais euh, euh, seetaan dàq ndaje saa seetaan mu dàq ndaje xam nga ne bëri da saaga moom saa yàkkam di xeex la non table de saa yi la yoon def mooy tekk tekkaa tekk woon la yoon xam lox mais ni ngeen départ nii non man maa su may wax wax am naa ngoru tey su deful ma tax maa njëkk taxaw naan li li jaadul ànduma si ma ànduma kenn de tàppante loolu ànduma ànd ànd tàppante ak kenn mën naa la laaj oui danga jàpp ne Ngouda Mboup ne peut pas être directeur de cabinet. man may laaj fii. non Ngouda directeur de cabinet. non mais comme dama lay fàttali tuuti rek. waaw yaay laaj. doxalal. <laughs> non li mu wax ni comme ay diw mën nekk directeur de cabinet y a mille personnes qui peuvent directeur de cabinet. mais pourquoi lui. mille mais parce que moom la moom la wóolu. non gâteau paaram ci gâteau bi la. moom la wóolu non gâteau yaa yéen a fi amuñu séddale yéen yéen est-ce fi dara bu ñu séddale est dara yéen instant yi ñun ñoo war a wax yéen am na dañoo war a toog toog yow war leen toog war leen toog leen taxaw. non instant yi war leen toog war leen taxaw. parce que xamagul leen fi bàyyi leen bàyyiwul. ñun kay ñun instant yi ñun ñoo xamagul. te lépp day leer ñun suñu kàddu dama ko jotee lépp day leer. non dama ne ñun suñu kàddu ñun suñu kàddu dama ko jotee. Adama ñu Adama xool Adama Adama tàmbaleegul billaay tàmbaleegul. dama ne seen kàddu xool éthique. Mouhamed euh, maam jub jubal Mouhamadou Lo Mouhamadou Lo waaw suñu kàddu waaw dabaguñu waaw président de la République bi ñu fal. non dama ne ba ñu demee opposition bu la République bi ngeen fal. opposition tey tey tey tey tey may ma tuuti président de bi ñu fal. waaw ah. le deux mu prêter serment le deux. Ah. ay kàddoom dab nañ ko. Ah. mooy président bi ñu njëkk vaar ci Sénégal. façon moom moo looluy dëgg. c'est le meilleur président d'Afrique moom la njëkk vaar. moo traité woon nit ki de petit type moo ko fal directeur maa ngi ñëwaat ci yow rapidement alors fi nga taxaw na am na solo mais à rappeler que ni démb également yaa ngi teewoon foofee ca euh, salle ba bi kii di Bassirou Diomaye fay di prêter serment. Mm. Ah, ndax mun nga ñëwaat euh, rapidement ci démb naka nga dundee boobule boobule boobule cérémonie ak loo fa gis lu nga xamante ni peut-être mun nga ko baaxee suñu internet demb euh, démb la mu fa gis dam sama yoon dafa daw parce que am nu ay ja ay affaires yu amoon Sénégal ay nit gaañu si. ay nit ñàkk seen bakkan tey président yow départ ko sax ngay fàttali ni yow loolu nga met nga nga xëy metti lu xam la maanaam wane ni vraiment que lo lo lo lu la tient ak cœur la xamante ni bëggutoo bëggutoo mu amaat Sénégal lu amoon Sénégal noonu loolu daf ko metti ba xam si discours am si ma jàng discours am j'ai vu un Diomaye ba nga xamante ni sincèrement très correct très posé très poli di nga yar lu mu la may si àdduna ko xañ ñun lu noonu waxal yaradiku ah mën lii mën lii on a vu le contraire chez Diomaye on a vu on a un président très poli très correct très serein discours boo xamante ni mën naa ni loolu xadis la discours ba mu def noonu nit mën na si bind nit mën na si yar doomam nit mën si yar kër defu lépp ba ba ba ba ba ba kii ba ba atteindre objectif maanaam nu mu départ dafa leer nañ mu dépare encore le cour le kii waa bu bu nga ñëwee du nga ko du lu nga lu kee Bambey defoon lu nga def du nga yedd mu dégg yedd bi yedd bu nga yedd daf ko dégg xam ni dama da nga am nopp doo dégg mais daf ko dégg moo tax mu sentir lu mu wax dégg bu nga dégg mooy xam na ni tey bis bu nga falee noonu ba ko jox lenge mu ngi fàttaliku jour mi génn pale mi ngi fàttaliku bis nit dina ñëw toog fu taxaw fii def discours bi mu def war ko remplacer te day am ala kulli aal mënut naa ci na daal xam naa loo la. parce que dafa kenn xaaru ko man mi xaaru ma ko foofu sincèrement. maanaam xaar discours kilométrique dox xam loo mais fast track la def. wala ni kat mais dem également nit ngi dañoo gis benn jomaay bu bu bu ñàngal sax parce que kanam gi loolu. non pas ñàngal dafa dafa xam li ngay xaar dafa xam li mu yor lan la Sénégal du foo dafa xam lu mu yor du foo du foo ay ay reetaan ak ay ay kii ay yooyu yooyu yooyu moom moo soxna si. yoru réew xam nga yoru réew dëggu jubal dëggal. d'accord alors Guèye Para rapidement nga nga mais information affaire yaa ngi yëngu de. gaa ngi gaa ngi xëccoo poste yi nee nañ <laughs> <laughs> eh, non non non ngi wàcc je t'assure. pourquoi liste bi retardé. oui ko am heure on n'a pas donné d'heure. non ah, yi ñoo grand grand xam les journalistes sont les journalistes du ñu euh, joxe heure. du ñu joxe numéro décret. du hmm. ñu joxe numéro décret boo amul. voilà moom la ñuy xaar mais xëccoo daf ci am ay maa la gën a légitime ak ay non non non non non non yaa ngi fii bu nga xam ne xew foofu non grand non ah. lii la xam ni nga posé baaxul ni nga posé ah. baaxul grand ni ah, nga posé baaxul inchallah dinañ leen ko dinañ leen ko baaxee non grand non donc Guèye maa ngi woon ak yow ci sa ci sa gis-gis ci fi euh, euh, violo euh, daanele par rapport ak démb cérémonie de prestation de serment bi ak it nomination Ousmane Sonko comme PM Marie Taw Niane